mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaaraat di leen wax ngeen dal jàmm seen émission Vox Arena ma seet si tey euh, coach Mame Less ñu fas yéene waxtaan combat bi nga xamante ne moom mooy combat bi démb réew mi euh, jóg ci diggante Eumeu Sène ak Modou Xarañ loo mu nekk combat boo xamante ne ba tey gars yi doyaluñ ci boobu ba léegi nit ñee ngi ciy wax coach maa ngi siyaar. <laughs> maa ngi leen di nuyu di leen siyaar yéen. wasalaamaaleykum seytaan rajim di leen gërëm aussi ci teewaay bi taxawaay bi. di nuyu sumay mag sumay rakk sumay frère di gërëm alaaji Fallou depuis RTS Fallou Galas di ko béggee bu baax di ko ñaanal aussi di leen ñaanal jàmm aussi ci taxawaay bi. jërëjëf mu nekk combat boo xamante ne combat royal bi dox diggante Modou Xarajo ak Eumeu Sène mu nekk combat boo xamante ne Eumeu Sène après bi mu nekkee roi des arènes ci bombardier bi mooy première sorteem. mu jël revanche boo xamante ci Euh, Modou la Modou daanoon ko donc ñu ne euh, roi des arènes mësuta daanu première sorteem waaye aussi roi des arènes mësta ñaan revanche ki ko daanoon donc c'est la première fois moo am Modou Lo jóge ci défaite gu méttee métti métti ay supporters am métti euh, waa parcelle nan nga gisee combat bi kaw bi <laughs> bismillahi mina seytaani rajim bu neex la peut-être da xoolul combat bu njëkk ba hmm. boo xoolee combat bu njëkk ba même action bi amoon démb ci diggante Modou Lo Eumeu Sène amoon na ci combat bu njëkk ba d'accord parce que Eumeu Sène moog Modou Lo ñoo tolloo technique gu bëri mhm. peut-être bu Eumeu Sène summi ko naa la ba tooy masse mhm. ak nit ko entraîné ba nekk der mhm. nekk caas wow kong lay def loo nekk ponkal ponkal bu la maîtriser ba téele fi mu la war a téye bu amee opportunité boo saakul dalay daan boo xoolee combat bu njëkk ba ban dawee korante pompe bi ko Modou Lo pompe démb épicule bi ñu ko ko dóor dóoral nañ ko ci combat bu njëkk ba mais dafa daw rocceeku ñëwaat entamé laaw bi laawu Eumeu Sène bi defa ci moom Eumeu Sène heure buy xeex laaw lay def gauche ak droite te laawam yooyu képp ku teey ci kombaam bi képp ku teey ci combat yi muy bëre da nga ko daan parce que laaw bi doole ji muy àndal day sànni laaw boo xoolee sànni na laaw góos ba yaram bi dem ba jàkkaarloog fàmm moo di Modou Lo bi yaram karamu Modou Lo bi mm-hmm. donc bu ko Modou jàppoon ci ndigg li bu ko xattar bi woon day daanu mm-hmm. ndax dóor bi tellement puissance bi mu ciy def mm-hmm. ak doole ji mu ci def moo tax heure bu laawoo yaram bi yëpp ay dem oui mais laaw boobu noonu moom Eumeu Sène muy préparer revanche bu mel ni euh, Modou Lo comme ni nga ko waxee mhm. ñu dóoroon ko combat yu metti mhm. parce que man bi ñu nekkee open press man ko naan saa yoo bëree encaissé ay coups yu bëri te ngay bëree koo xamante ne mhm. dafa mën a xeex loolu maa ngi ko koy wax mais dafa mel ni dégguma moom mu ngi wax ci leneen mais bu ñu ñëwaatee moom am ay entraîneur mhm. am encadrement mhm. muy bëreeg Modou mu nekk xeexkat mhm. alors mo donc Eumeu Sène encadrement lan lañ ko lan lañ ko préparé parce que ñun gisuñu stratégie bi li mu defoon ba daanu moom la defaat Modou boo xoolee dóor bi mu dóor Eumeu Sène démb fooram la waaw boo xoolee contre Balla Gaye làmb laa lay wax boo xoolee contre Balla Gaye bi Balla day dawee somb ko bi mu ne ko vëpp Balla da ko wicci mooy premier combat bi moo Balla boo xoolee même action bi mu dóor Eumeu Sène bu ko bu deuxième coup ba ñëwaatoon Balla day wàcc mais Balla bi ko Eumeu Sène ne vëpp benn coup bi ko Modou Lo ne vëpp benn coup da ko wicc xaar ko fa ancienne action bi ñu yem foofu parce que ndaanaan ne daan daanaan ñaari ndaanaan buñ tasee faawu benn ndaanaan daanu ñaari bërëkat buñ tasee faawu benn bërëkat daanu eh, ndax ñaari ndam mooy dugg waaye benn génn te benn boobu du ci ndax ñaari bërikat lañ. waaw mais euh, staffu Eumeu Sène lan la ñu waajal kon ci combat bi parce que même erreur bi mu defoon ba daanu daw di songu gars yi pompe la ba nga sonn lool ñu doog laa daan nga ñëwaat ci même combat bi deuxième bi revanche nga xam euh, Modou Lo bu baax a baax nga ñëw joxe sa loxo dóor laaw laaw bi déjà ñoom lan la ñu préparé kon. Cheikh yàgg nañoo waxtaan ma ne la mbër mu ne xam nga mbër mi la man hmm. lu leer laa wax Sénégal mbër mu nekk xam nga mbër mi la man man ni ma xamee Modou Lo xamee moo ko Balla Gaye man bu ma neexee toog ci Modou di wax suba ba ngoon ndax damaa yàgg ànd ak moom yor sama oto jamono ji yoru oto moo garga garga di toog ci kanam Modou Lo di toog ci gannaaw déggoo ma de. maa la dégg. 3 24 bi ma jëndee Allemagne. waaw 3 24 bu weex. gargaay toog ci kanam Modou Lo di toog ci gannaaw. ba ma lay wax loolu gone yi bari dugg duggaguñ ci làmb kërëfe naa ñu ànd ñoom ñaar ñu yëkkati oto bi ma changé pneu bi delloowaat ko place am seerewaat pneu yi ba mu jekk ñu naan ma gaawal man leen mbër ngeen téye leen ko noonu ma seerewaat pneu yi ba mu jekk kon lu ma wax ci làmb nit war ko nangu. xam nga ko lu leer lu leer laa lay wax. moom Modou Lo ndaanaan la. Mhm. boo gisee compame bi passé mook Balla Gaye mhm. xale yim doon àndal ma ne leen nañu teey bañ wane benn indiscipline. waxtaan ba waxtaan am na ca njariñ ndax gisoo combat démb bi teey nañ dal nañ seen cumbukaay respecté nañ ko respecté nañ wax dafa am solo dégg-dégg aussi am solo bul yaakaar damay xarab nit ki mais làmb chaque fois boo ci demee di tooñ ñaari doo ci génne ndam. parce que li ma seetlu démb ci cumbukaay ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo Serigne par rapport ak combat euh, ak euh, Balla Gaye yi nga xamante ne moom ak Papis yëpp ci géew gi lañ nekkoon di lëmbee Serigne Ndiaye moom li mu daan def la def toog ci cumukaay bi dal tous bu jaar yoon modloo sonnul newu fii di def lu inutile maanaam concentré wu ci sujet am wu démb làmb bu la jaralee lenn li mhm. nga am tolof tolof ci combat bi passé ak combat ba nam demee mhm. ak ni ko Modou Lo kenn ku ne duna def ci ay moyens mhm. ku ne def ci moyen defoo ci alal danga nga soxor parce que waxuma la sax ñi déplacé mais lam ca daj bu ca récupéré woon comme ni mu récupéré contre contre Eumeu bi combat ba gën a neex Modou Lô bi mu récupéré contre Eumeu Sène bu ko récupéré woon kon contre Balla Gaye combat ba gën a neex mais mooy li ma la xam nga buñ la tegee yenn coono yi intense say entraîneur dañuy ñibbi mm-hmm. peut-être doo bokk fi ngeen di fanaan. bu la neexee mën nga vailler sa téléphone wala nga nekk ci computer wala station am na ñoo xam dañ ko bëgg loolu seen seen seen virus la donc récupération athlète bu matul 10 heures de temps na mat 11 heures de temps parce que saalu musculation yi ngay dem la entraînement bu intense bi ñu lay jox la 5 kër nga contact ba 19 heures balaa ngay pare di sangu 20 heures 21 heures jot nga bëgg toog ci saalu play di play doo doo récupérer récupération baax donc loolu plan de carrière yu la hmm. pour encore ñuy am dégg-dégg du question xarab boo duggee démb ci komba bi nee naa la combat bu njëkk ba même action bi am démb amoon na ci combat bu njëkk bi Modou Lo bu njëkk bi bi Eumeu Sène njëkkee song Modou da mu génn da koo dóor uppercut mu génn mhm. bi mu dóoree uppercut dafa dikkaat xeex droite laaw gauche laaw droite Modou laaw bi defal ci moom Eumeu du ne Eumeu ay technicien préparé wuñ ko mhm. ay techniciens ñoo ko préparé gis nañ ko muy def ay séance de boxe loolu mu ngi ci internet bi mm. mais am man ni mu waroon bëreeg Modou Lo droite bi rek la waroon bëreeg moom. droite denc gauche bi gauche bi laaw du fa woon yoon. dóor na Modou moom droite la teg am na Modou Lo teg gauche. Mm-hmm. Modou gos gauche lay cokkoose nga remise droite maa la ko wax loo yàkkamte looy daw bay daanu. combat bi dóor remise mu dóor nga remise. mu dóoraat nga remise. Modou Lo xeexam ñor na xomm. at la di nekk Sénégal il est le meilleur en boxe le meilleur. moo ci gën a ñor boxe Sénégal. mën naa moytu. am na lecture combat. gis na coup bi heure bi ñëw. ten daan la. Mm-hmm. day mel na ku la xoolut bopp bi bu ko sànnee côté sa coup bu ñëw mi ngi koy gisee. bu la remiser nga toog parce que mi ngi gis am na lecture combat lii pare mooy bi am xeexee droit xeex benn instant accéléré komba bi boo xoolee laawu gauche ba mu ñëw amu foon yoon bi mu accéléré combat bi noon naa benn bennal droite di dóor moo di remise di dóor moo di remise ba mu jàpp bëre ba gën a ubbeeku mais xoola nga laawu góos ba sa yaram dem ba sa centre de ba maanaam tamit loolu tamit loolu erreur bu mag boobu. ci ci ci champion bu moom. ba pare loxo droitam bi amul loxo loxo droite mbër nay jàpp loxo droite bi ca kaw fàmbaga la ko teg ca jàppul fenn avant yaram bee dellu bi ko moo duy kor di ko pompe premier coup ba dal premier coup ba rek laa la wax de moo jeexal combat bi deuxième coup bu daloon mar de taal yi parce que deuxième coup ba dafa romb jàllul. waaw dafa romb bopp bi ba génn ca kaw loxo Modou nam ko danke yaa ngi koy seen muy jàll bay romb. effectivement bu daloon musiba am. bu daloon mar détaillé. Mhm. ëmma bu dee bëre jox cër Modou fi mhm. fii ak ans du ko daal. nga ni je gi muy jox Modou Lo ko continuer di jox. fii ak 10 du ko daal. looloo dal Modou Lo ci Balla Gaye looloo dal Eumeu Sène moom ci Balla Balla bu ñëwee jox cër Eumeu te ni muy bëreeg Modou Lo du ko bëreeg Eumeu Sène du daan Eumeu mukk làmb boo yoree ay qualité nit ñi xamee la lenn koo daan may deux minutes bu ko may deux minutes bu weesoo deux minutes mu nga may ko confiance nit ki boo bu ñëwee yow nga nekk roi des arènes téye roi des arènes sa loxo. sa première sortie da ngay tey looy accéléré combat amu fa. Mhm. entraîne li nga entraîné gën a metti léwtoo. Euh, looy accéléré combat amu fa accéléré na combat di nooy nooy metti loxo yi teel a chargé cela veut dire musculation bu muy def ci weñ dafa bari endurance bu bari la waroon am maintenir moom denc lii ñu kooram ba nga xam ne parce que munoo am am volume yenn volume yi lu combat bi gën a yàgg gën a métti ci yow. loolu te mu doon accélérer combat bi. effectivement parce que lu mu gënoon yàgg gën a métti ci moom Modou Lo lu mu gën a yàgg gën ko arrangé Modou Lo bu combat bi doon dem fii ba suba doo sentir ci moom yenn yenn signe de fatigue yi du am parce rotation ree yi mu doon liggéey parce que xam na ne ëmma day laaw donc yow esquiver rotation mépp noonu loolu ngay jàng ba nga xam ne bu laaw bi ñëw parce que xam nga ni ëmma du dóor direct day laaw kooku moom déjà mi ngi ci mentalam biñ ko dóoree premier coup boobu wàcc na parce que loxo yi damm na gis nga coup yu mel noonu mooy nga laal courant deux cent volts mu maas la kooku da ngay dëpp kenn mënu si dara. kenn si dara non il faut nga da ngay parce que bravo Malick. Hmm, euh, non Malick arbitre Malick Ngom. non bravo. Malick bravo Malick. Hmm. parce que am na loo xam da nga koy wax encore Modou man damay wax rek ci làmb mais action yu mel noonu Modou bu amatee nga dox ba tiim Eumeu Sène Malick arbitre bu tuuti la. dimbaleel Eumeu Sène. Hmm. mais surtout victoire bi fi mu tolloon parce que moom Modou mu ngi doon dellu si. non gis na Malick foofu peut-être looloo tax. Malick attanul Eumeu. Hmm. ma Modou dimbali Eumeu. parce que fi Eumeu tollu tey ak fi mu nekkoon démb moom mënoon na ko fa nekk donc xalaat bu may jox mbëri la pour ëllëg parce que tey protestant bi Eumeu Lô bu làmmiñ ba damoon ca biir mu aspiré suuf si nooyi ko non. Malick kattan gi mu amee ba yëkkati ëmma am Malick matu 80 kilos wala 90 kilos. donc su ma la déggee bu baax. Euh, bu ñu résumé bu baax a baax combat bi. Mhm. donc Eumeu Sène fu mu toll nii. Mhm. jouru combat bi. Mhm. combat bi da ko raw da ko da ko da ko dépassé da ko dépassé parce que man li ma seetlu mooy bi bagaar amee ci biir géew gi entre sottante gàllaaj Eumeu Sène dafa des ci bopp bi par exemple sottante gàllaaj bi euh, bataille psychologique bi ci biir ci biir géew gi dafa mel ni dafa perturbé Eumeu non sottante gàllaaj bi ëmmaa ko njëkke mm-hmm. bu mooy wax damay wax dëgg sottante gàllaaj bi ëmmaa ko njëkkee Modou Lo sotti ko beneen bidon mm-hmm. boo gisee arbitre bi avertir luñ sottante gàllaaj yi bari na bari boo xam ne bu ñu leen avertiroon kenn ku ne da am trois wala wala wala yooyu te day xaje day yàq combat bi. seetlu euh, Modou Lo Balla Gaye. Mm-hmm. Balla Gaye ñoom euh, ñoom ñoom Serigne ñoom Papis lu ne laal noonu nga mais il était tellement serein sax li ko gars yi doon def. d ma la rek la. boo demee butéel yooyu nekku ci boo demee butéel yooyu si mun na la fexeel ba mu laal mm. boo demee ndox mi fexeel ba la laal mbër mi mm. walla këriñ kii ñu la jox wala xeer bu ndaw bi fexeel ba la jéggi kaw boppam mm. wala xeer bu ndaw bi fexeel ba la dugg ci ñaari yàlla yi tegtal la dañ lay tegtal rek pour nga def ko mais est-ce loolu war na des si bopp mbër mi non nu muy dese ci bopp Eumeu seen Eumeu Sène psychologiquement il était pas prêt parce que boo xoolee nit mbër day xajam mm-hmm. mbër da sotti ko ay gàllaat xajam man bëgguma mbër moo xam da ngay sotte ko ay galaaj di wow koŋ bëgguma ko mbër nee naa ba tàyyi mbër day xajam di sangoo ay galaaj xajam téere yi des yaram bi non yu xeeñ non parce que mbër daa war a xajam yu xeeñ nga war a sangoo arbitre di la romb mais démb di la romb ngay romb arbitre ñu taf seen bakkan loolu lay wax ne galaaj bu ñu yàgg denc la mais course loolu dal nañu ci làmb parfois nga dem ah, ci làmb ji mbër day xajam loo xamante ne course bu ñu la rombee gars yi ne nga ah. taf say bakkan day mel na ñebe joo jënd 10 ans wala su cabinet bu ubbi di ko sangoo maanaam dama na la. mais maay maay fàttaliku sama sama papa Simel ndeysaan bu saa yu tijjiwaan butéelam gars ay waay butéelu Simel ba butéelu Simel. xam nga moo tax moo tax ñu bëgg ne mbër day xajam parce que boo xoolee loolu psychologiquement du du boo xam ne war naa déstabiliser ëmma ndax ëmma champion la bëri naa ku ne te aussi waa Pikine nañuy rafetal kàddu yi ci seen mbër. nañuy rafetal kàddu yi nañuy sàmm kàddu yi nañuy denc kàddu yi di ko di ko dëxëñ muy rafet parce que Eumeu Sène ba muy daan Balla Gaye dañoo kontaanoon. léegi ba muy daan Bombardier. neexoon na non tey bëri naa nekk roi des arènes Modou Lo daan ko roi des arènes bul buy tourné naa il est fait pour personne. defaruñ ko pour kenn teguñu ko fi pour kenn. bu loolu Balla Gaye du ko dégg bu doon kenn dong koy jël Balla Gaye du ko dégg Yékini yoru ko pendant ñaata at Tyson ko Manga mi wax ni ko roi des arènes Bombardier Serigne Dia yoru ko Balla Gaye mi yoru ko mm-hmm. mais bul buy tourné la mm-hmm. écart boo ko tegee boo ko tourné day tourné ba taxaw mais est bi moo ñaaw par rapport ak li tax ñuy kaas est-ce du défaite bi moo ñaaw parce que roi des arènes tamit musta daanoo nii de coach ma làmb jël bu ne am na fi dóor nañ fi nit tipp mu daw génn saako yi góor nañ fi nit di ko dàq mel ne lii du làmb course épique la ma ne làmb ni mel. donc dañu encouragé seen mbër Eumeu Sène non non gis nga làmb boo daanoo rus. boo daanoo. waaw billaahi coono gi nekk ci yaram Eumeu Sène tey ko ko xooloon tey. billaahi man yërëm dama ko dama am yërmande parce que làmb mën nga daan wala nga daanu. bëre lu rëy comme seen bëre bu njëkk ba boo daanoo voilà mais nii nii nga dégg ay saaga te te te ñi lay saaga yow ku tey ku ci taxawoon ak yow bark boo ko tisoolee wala nga jadd mu xajal na foofu yëpp. waaw mais bëgg yi ni bëgg moo ni ah, mais non mbër mi tey dana comprendre lépp loo xamante ne supporters yi kaas nañ ko et ma moom seen ñu koy encouragé bu baax a baax. kenn du wax euh, du mbër kenn du wax du du du champion kenn du ko wax kenn sañu koo wax sax ndax. mais dañ koy félicité waat moom. lépp loo xamante ne warloo na ko ak supporters yi man nee naa ëmb def na ko. képp koo xamante ne dégg nga baatu roi des arènes ay milliers de mbër ne fi nga dégg baatu roi des arènes wàccoo nga ak say supporters sauf ko nag combat bi dafa métti woon 2-0 mhm. yi moom métti woon mhm. alors bu ñu jógee foofu mhm. làmb fu muy yóbbu Eumeu Sène euh, ñu ñu ñu ci yeggale tuuti rek anecdote bi mooy man Eumeu dama koy encouragé wax ne ko bu mu découragé ndax moo jiitu Modou Lo ci làmb Modou Lo aussi carrière am bi ak roi des arènes bi mu yor na ko sàmm parce que parcelle deseelatu leen dara te aussi li ma gis mooy li mobilisé woon démb ak par rapport li doon ñëw ci stade bi des na. mais nit ñi ko maree woon tey leer na ma ne ba ñëwuñu ci stade bi ku ku ci xool bi combat bi jeexee ñoo jiitu ca buntu kër Modou Lo naa fiq moo baaxul nit nit ki boo koy bëgg danga koy bëgg ngir yàlla nit ki boo koy jàpp. da nga koy jàpp ngir yàlla am kóllëre ak moom mais bu daanoo ma découragé bu daanee ma ñëw ca buntu këram ne ko faa nga ne man la Eumeu Sène bu mhm. dellu siwaatee ak mhm. làmb fi mu fi mu toll mhm. mu ne woon ni du bërek Balla Gaye déggoon naa fi sax ab tournoi boo xamante ne gars xalaat nañ ko woon tournoi des Euh, nu mu tuddee des rois des arènes. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. tournoi boo xamante ne moo waroon a boole Balla Gaye roi mm-hmm. des arènes. Euh, Eumeu seen roi des arènes. Bombardier roi des arènes. ak Modou mi mii roi des arènes. ñeent ñooñu. ñu tëgg leen ci benn tournoi boo xamante ne mën na jël peut-être année wala deux ans. boo xamante ne dañ leen di fay koppar bu am am solo ñu jéem a xool qui est le vrai roi des arènes tamit. kooku xaalis ba cay dem ku koy def mooy problème nañ waxante dëgg. nga course ma def ko. man bu ma doon naaj Equivox ñu def ko. man man bu ma doon tëgg làmb. non course man dama ko bëgg def. non man bu ma doon tëgg làmb. waaw ah, course dama digal ma def ko. non man bu ma doon tëgg làmb. man waxuma yow léegi man munoo maa digal ko. Cheikh Omar boobu budget foo ko jëlee. El am na ko. say mbokk fu ñuy jógee El laa la wax am na lay dimbali fu ñuy jugee. dama ne la man bu may doon tëgg làmb génération montante bu ndaw bi laay boole benn journée jël benn spécial bu saf sàpp def ci muy xale yi màndi béré waaw d'accord loolu leneen la. waaw mais léegi d'accord ñu ñëwaat ci Eumeu Sène Tapha bi nga wax. waaw Eumeu Eumeu Sène Tapha Tine combat la. Mhm. boobu combat bu ñor xomb la ndax Eumeu Sène benn adversaire potentiel boobu rek la fi dese ku mu bëree lagul. waaw Modou Lo tamit noonu. ku mu dese. moog Tapha Tine dong fi dese dama lay laaj kan la fi dese wax ma ko. bu dee xam nga la déggoo li ma la adversaire potentiel bi nga xam ne bëreewut ak ñoom. xam nga Caradass bu ne am na yoon. biñ ne ko moog diw def na leen dëgg dëgg neex yàlla. kuy diw coach. non dama lay wax bu ne la buñ ne ko moog moog moog moog rëg-rëg. waaw rëg bi mu daanee. waaw mooy li ma lay wax rek. man suñu jot daan na fii ci arène nationale bi naan ma nañ ma jox Ama Baldé. yabaate weesuut loolu dama lay wax lu leer double moteur daan ne ma damaa soxla rëg-rëg. man du ma jël sama xaalis jokkate ci double moteur te gis rëg-rëg dama lay wax lu leer parce que gis nga étape dafa am. état bu làmb ak làmb da xam li làmb yenu maanaa nga teg ko ci taabal ji Double Moteur ni mu def contre Feugueux la na xool noonu ni muy bëree ak génération bu xaw a tolloog moom ba xaw a avancé ba xaw a avancé waaw léegi nga ne nga ne moom laay wax ni ba tey Ama Baldé peut-être yaramam tàng na ba muy laaj Modou Lo moom ak Boy Niang même adversaire potentiel ñoo ko bokk Boy Niang bu ko neex tamit laaj Modou Boy Niang mi ñeme laaj Balla Gaye ko war naa ñeme laaj Modou Lo. mais loolu dama fay taxaw dama fay mhm. taxaw. Mhm. Ama Baldé pour man mhm. li tax mu gën a am droit. bëreeg Modou Lo que Boy Niang. Ama Baldé dafa bëreeg benn VIP mu tudd tafaatin waaw moom mu réussir a daan Tafatine. waaw bu sañ bu mu waree mën a jël Tafatine. war a mën a jël ku daan tafaatin attention ci ci ci làmb beneen bi mooy beneen bi mooy Boy Niang. mi nga xamante ne da doon bëre première VIP bi mhm. muy Lac de Guiers mhm. bu ko daanoon mhm. kenn du ko bañ ci kaw mais moom dafa échoué foofu mais Ama Baldé dafa réussir ci benn VIP bu tudd tafaatin donc Modou bu ma déggee nga ne ma Modou Lo war na mën a bëre Tafatine te ba fi Ama Baldé ku daan Tafatine kay war ngaa mën a bëre ak Modou Lo non waxuma la pour mu Ama Baldé bañ bëreek bëre ma dama ne la génération montante lañ comme ni ñoom booy di jéem a yónnoo ñoom rek rek dama ne la Ama Baldé Boy ñaa Modou Lo Modou loo Tapha Tine karadaas laa la jox déggoo ma de dama ne la loolu non loolu lépp ay combat la mais ça dépend ci sponsoring bi ak ka koy organiser ak promoteur ba koy organiser ak xaalis ba muy laaj eh, parce que Modou fu mu toll nii ku ko bëgg a bëri waat loo le roi des arènes ah, yomb de. non combat beeg Eumeu Sène sax xaalis bu weex tàll lañ ko fay. donc kuy bëree bay jël Ama Baldé aussi xaalis bañ la fayeen dana gën a amuk yokkute. nga jël couronne roi bi teg sa kaw. moom laa wax dama ne la ñim fi desel comme mbër yi war a bëreel Boy Niang bu ñemee yootu Balla Gaye kon xam nga ne ñeme naa yootu Modou Lo Ama Baldé mënta bëreeg Balla Gaye moo tax tudduma ko parce que leneen leneen relier moo tax mais Modou Lo li ko fi desee Gris Bordeaux Modou Lo daan na ma waaw euh, Tapha moo ëmma seen daanaka ñoo bokk ñaari adversaire yoo xam ne kenn leen boole muy tafaatin léegi nag promoteur ba moom mooy décider fa mu jëm. fa mu jëm tafaatin tafaatin ëmmat euh, seen boobu nga wax. Uh-huh. mais ëmmat seen. Uh-huh. lan moo tax mënul dellu siwaat waat. Uh-huh. bëri Balla Gaye moom moo toog wax ci télé yi. wax ci rajo yi ne leen dootul bëri Balla gay ndax am na lu leen relier coow lu leen relier coow lu ndaw mais làmb bu la nit ñi laajee mën nga wax dootuma bëri diw mën nga ne kat. comme daan naa ko ñaari yoon wala yooyu nangam nangam bàyyi ma dem xo a avance sama carrière gën a yokk comme maa ngi presque ci cycle bi. parce que lamb dafa tëree lu ne mën loolu loo tax fi mu toll nii. Balla Gaye demoon na ba ko indiwaat som daar bañ ca fay la bu xaalis bu wextaal tegoo sur la table promoteur yi ñëw jox la ko sponsor bi ñëw sous dessous de table yi day am. te loolu doo ko doo ko fisal. donc combat yi mel noonu bu som daar boobu ñëwee bu boo du ma bëreet ak diw bu xaalis ba taxawee da nga ko jël. yàlla nañ yàlla defal jàmm ëmb seen bu dee amu ci benn gaañu gaañu bu dee amu ci benn jafe-jafe yàlla na ko yàlla defal jàmm bu lëkkatee bu amee benn combat yàlla na ko yàlla may ndam. Modou Lo aussi ku jara félicité la. ah parce que durant tout sa carrière ba muy dem Mbapat ba muy bëri ñoom Ama Baldé di di bëri église di dem fu ne donc ku ñu yàgg suivre la lii mu jox waa parcelle c' est une mérite. wàccoon ak ñoom de. non bu bàyyi woon bëre waa parcelle kontaan nañ parce que li fi war a dugg la. te des na yeneen champion yi ñëw. alors lan ngay tàggatoo euh, ba beneen. Euh, maa ngi gërëm Baye Cissé. Baye Cissé croisement 22 muy suma xarit. daanaka bu ma jàddee yoon sax dana ma woo ma jàdd naa yoon. maa ngi gërëm Baye bu baax. di gërëm waa Kaolack bu baax. di ko gërëm moom. Hmm. maa ngi gërëm Baye Cissé. maa ngi gërëm Baye Cissé voilà nee na mu ngi gërëm Baye Cissé point noonu la euh, coach euh, Mame Less ñëwee ci combat Eumeu seen Modou comme ni mu ko waxee ñuy encouragé bu baax a baax Eumeu seen le roi des arènes ñu koy félicité bu baax a baax a baax ci parcours bi nga xamante ne def na ko moom Eumeu Sène bu yeewoo daal di xalaataat bu baax xam na ni yoonam mësta yomb donc lii la mësta am ci làmb lii la mës a am lii la ko yàlla sédd ci làmb mooy combat yu metti combat yu jafe live bu metti aussi na yu bëri yu bëre na dellu si waat avec un peu de recul war naa mën a bëri ñu bëri ci làmb parce que aussi daan na ñoo xamante ne kenn xalaatul loon daan ci làmb la jageer 2 nga daan ko daan Gris Bordeaux daan Balla Gaye deux fois Balla Gaye ba tey soxla komba bi bombardier nga daan ko donc yaakaar naa avec un peu de recul war naa mën a bëriwaat ak ñu bëri xaalisam ak ci làmb ji moom Eumeu Sène quant à Modou dañ koy féliciter encore une fois di ko féliciter bu baax a baax a baax li ma grand job di tolloowul ak ñoom mais ku ciy bëre ñoom daal di jommi moom am na bëre bi am na fulla bi am na entraînement bi am na lépp loo xamante ne xarañteef la ci wàllum làmb ñu koy félicité di ko encouragé di ko euh, ñaanal ci coronam bi nga xamante ne am na ko moom it làmb ju yaatoo yaatoo ci ginnaawam bu mu tëdd nelaw parce que bu tëddee nelaw am na xale yoo xamante ne rawatina ñii dëkk Pikine nga xamante ne ni mu def seen mag neexu leen ëmbat seen parce que koo xool démb euh, booy ñaa démb am na lu ko metti lool Ama Baldé fi mu toll am na lu ko metti lool na ko wóor ni boo yooyu ñu ngi ci ay tànkam di ko di ko songu donc bu mu nelaw benn yoon moom moo duloo donc làmba ni mel ñuy féliciter ñëpp di encourager ñëpp di féliciter aussi promoteur bi ah di ko euh, ñaanal moom it réussite di sant ñëpp di gërëm ñëpp peace